إليك رسول الله جالسا فوق الحروق في هذه سجرة الألم فنلكم مجلسين في إجرة قد سمع انظر لسائله عند المصلى بتحت الإجرة lu fa doon def mu ne fa jaa jumlatul arwaax xaasidaw fi man sakin man na il abraar muxtaram ñaan ko yónneen nga yónneen nga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد ذي البعثتين وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذو nu ngi nuyu mbolo mi di jiital sunu nuyoo sunu sang sunub xalifa sayid muhammadul muxtaar ibnu sayidna majoon ibnu sayidna imaamillaahi alayhi salatu wassalam di ñaan yàlla sunu borom yagal ka fi may ko wér mu yag ñoo jité ñu ànd ak mom ci xew-xewu tedd bi ak yeneen xew xew yi aju ci diine ji ànd ak itam ak di ko ndokkeel ci bésu maamam bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom la ñuy màggal tey jii téeméer ak ñeent fukk ak ñett defe naa ba bàyyi maali mbay di wax juróom fukki at la doon wax léegi mu ngi si téeméer ak ñeent fukk ak ñett kon loolu dootu caaxaan waaw euh, nu ngi koy ñaanal yàlla suñ boroom defal ko jàmm di wàcce nuyoo bi ci sanga yi topp ci moom di al imaam muhammadul bashir sayid muhammadul muxtaar euh, muhammadul amin ak sayid muhammadul muxtaar ñoom itam al di leen ñaanal yàlla sunu borom ba defal leen tawfiix ah, te di leen dokkeele seen bésu maam di ko wàccee ci soxna yu tàdda soxna loo te jéete leen wàccee ko nag ci eh, sa ngay topp ci ñoom di bàyyi Seydina bu Seydina maam Alassane Laay ak bàyyi Seydina bu Seydi Abdullahi nu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix itam Euh, di leen dokkeele seen bésu ñu yóbbaale ñoom euh, li des ci sanga yi si topp ci ahlu bayt seydina imaam mahdi alayhi salaatu wasalaam ah di ko wàcce itam ci kilifa yi fi nekk yépp ah, di ko teg ci loxol imaamu ngor mu àggale ko ci kilifa yi fi nekk yépp yi fi teew yépp ak ku fi képp ku fi teew ak jullit ñu fi teew yépp daay rey góor yi kuy jigéen yi ak képp ku dib jullit ak foo mën ne ni ci àddina waxtu wi nag ala kulli xaal ku ne xam na ne dem na waaye lu mu xat xat xat xat liñ daan ubbakoo moom dina ci xaj ndax libaase laay rusulullaay looloo tax ñu daje fii yonen ngaa yonen nga moo ñu fi dajale bi iznillahi jalla wa ala ci ndigalal sunu borom ndax ñépp a xam ne seydina limaam alayhi salaatu wasalaam ak yonenta la woote du yonenta gu bees nag du nubuwa mubtadaa déedéet yonent gu nuy tàmbali amu fi ulama yi dañu tënk ci laa nabiya baadahu ay tubtada u nubuwatu wala tabtadi u nubuwatu loo ci wax baax na kuy sos ak yonent ginnaaw yont yàlla Mamadu moo fi amul waaye yont yàlla Mamadu ci boppam moo ñëwaat fii ci nun moo oote ci penku ويختال دمنار تود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب سما بروم مباري فوفو مجيلي كفو فينيات فيتي نوني نيت نيو نوني تود إمام المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام دي سيدنا الإمام الله عليه الصلاة والسلام مني نك من ديمبا مانا تاي ما ويخون ديمبا ما نيول تاي دي وخ عربي يولير ما نيول تاي دي وخ أولوف يولير loolu du dara ci suñu boroom du dara ci moom woote bi amul dara lu ñu ciy nëbb li ci gën tuuti dinañ ci taxaw insha allah kàddu la goo xam ne nag moo ñu mag te moo mag ku ñu mag moo ñu mag ci li paase moo ñu mag ci liy ñëw ñi koy jéem a dindeet moo leen mag ci li paase moo leen mag ci liy ñëw kàddu gii de kii fekk bu fiy jóge amaana ba malaaka mi wal ci bufta bi lay doon kon nag loolu moonu fi dajale alayhi salaatu melokaan yi mu ñëwee nag ci yoonam wi moo nax ñu bari tàmbali woon nañ ci wax na gër ni daaw mu di anam goo xamee ne yàlla daf koy may ab nitam tàmbalee ka ci yonente yi ndax malaaka yi xam ngeen ne yàlla daf leen moo ñaale ñu man di soppeeku defal ko jinne yi waaye defal ko ay xejjam ci biir nit ñi ka ca jëkka di sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa nga xam ne maqaama boobu keneen ku koy def daanaka ci moom nga tëbboo pour man koo def ci ndigalal sunu boroom subhaanahu wa taala ndax tey jii ñiy liggéey jumtuwaay yi léeg-léeg nga gis jumtuwaay boo xam ne la ca nekk ci ay programme dañ ko ci liggéeyaale am ci boo xam ne amul yooya waaye dañ ko ciy installé kenn liggéeyaale ko ci waaye dañ ko ciy installe mooy doom aadama yi yàlla bindu leen ñu man di soppeeku waaye mën na installé si ñoom loolu ñu di ko def waaye nag gëm nañu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ko ko bindaale ndax ci leeram la ko binde kon nag loolu lañu ñu tudde woon wilaayatu tadlil moo taxoon mu ne damay gan gu ñu seenu si bunta kër ma jaar ci poot ndax ni mu ñëwee la libaas nag ne olof nga ñu feeñu bés ni ki tey dégg nga moom nga ñu feeñu bés ni ki tey malaan moomu ko yàlla solal nag amaana ba moo trompé ñu bari looloo tax tàmbale ka ca yonent ba teg ci yonent yi teg ci li des ci awliyaa illaahi ñoom ñépp genn wilaaya moo leen tënk waaye nag seeni garaat yi amul awliyaa yi nga xam ne àgguñu darajey nubuwa te tënku ci yonente bi yàlla defal leen ay karaamaat sax dañuy man léeg-léeg di soppeeku di feeñ ci yeneen i melokaan yoo xam ne day tromper di nax koo xam ne xamu leen loolu moom la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di def saa su ne di di sumbi ay malaan di sol yeneeni malaan te bu ñu waxee malaan ci àqu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du malaan ay yére déedéet ay jëmmal ak i melokaan yu muy soppi ñi xam ñépp xam ka ci ni muy demee moom sallallahu alayhi wa sallam xam nañu ne day soppi jëmmam nu mu ko neexee di dugg ci ay jëmm nu mu ko neexe te loolu ku ne xam na ne ak àjjana la gu ko yàlla gaawe fii ci àddina ak képp koo xam ne yàlla xejjal na la teg la ci maxaama boo xamee ne toppa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo la ko may looloo tax ñun la mu'jize yonenta lu bari ci boroom xam-xam yi wax nañu ne dagan na mu feeñ ci loxal wàlliyu lakin bi chart aadami tahaddi yonenta mën na koo toxal ci loxal wàlliyu set waaye nag wàlliyu moom du def defi du oote sañu ka ngir dëgale ko yonente boobu yonente dina wax mbir sama boroom wàcce ci alquran nangam ngir dëgale ko yonente boobu bunte bii ñu nekk nag ci bunte boobu la ndax nitu yàlla yi tàmbalee ko ci yonente yi dañuy faral di feeñ ci ay melokaan yoo xam ne ku yàlla defalul tawfiix dinga nga leen weddi ci melokaan woowu waaye ku mu defal tawfiix dina la ubbee ba nga xam ne kii kat ci gaañi la malaaka ye wax nañ leen ko gër ni daaw ba ñu wàccee ci maam Ibrahima yor jëmmi doomu aadama nuyu ko salaamun mun munkarun la ca teg xàmmeew leen waaye ñoom ñoo ko wax ne inna rusulu rabbik gis nga tadlil googu amoon foofu waaye day nituk yàlla dib yonente looloo tax mu mën caa mucc waaye ña ba ñu demee kër luut gis nga gaaña di leen songa ndax réer xamuñuy ne malaaka lañ la xew xew fa ñoom it loolu la ñu wax luut inna rusulu rabbik muy door a xam yonente bi sallallahu alayhi amoon na maxaama boo xam ne bu jibril ñëwee yor jëmmi nit moom dina ko xam saaba yi réere ko daan na ñëw yor jëmmi koo xam ne aarabi la maanaam koo xam ne mu nga ca sàmm ga wala mu nga ca kaw ga na mu demee ci xadiis bi duma ci xóot lool ndax waxtu yi dafa jeex ngeen dégg ko bu baax ba muy laaj ci ponki ngëm ak lislaam ak yu deme ni ko noonu keroog jëmmi doom aadama la fa ñu indi kenn xamu ko tur rasulullahi sallallahu te amaana ba nit mënoon na juum ci moom dal di yàqu ba muy ñëw di jël jëmbi Dihya noonu la ñëwee ndax Dihya day saaba boo xam ne ñëpp a ko xam waaye ci dañ ko xamoon cib taar ba Jibril bu daan wàcc day jël jëmmam sol ko doon nit door melokaanam tey boo ko songoon rek musiba day dil di am nga jàppe ne dixya la waaw ajmaluhum dixyatinul jamilu jaa ala suratihi jibrilu loolu la imaam suyuti wax ki dàqoon ci saaba yi mooy dixya yont yàlla jibril da daan ñëw ci yonente bi sol jëmmam ba ku ko gis defe ne dixya la kon nag noonu sanga bu tedd bii di imaamul mahdiyul muntazar alayhi salaatu wasalaam kay muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñëwee waat wolof nga nu feeñu bis ni ki tey wolof laa nàmpa way la ba tey liggéeyal yàlla moo gën a yey nga sante ko ñoo ci kontaan kon nag lii mooy kàddu gi lu ñuy nëbb amu ci fii la ko yàlla làqoon lu ëpp junniy at guddi gu jot mu génn wër àdduna ñëwaat moo ko wax ci làmmiñu boppam warulaa jaaxal ndax démb jàng nga israat mi'raj rañaan ma ak yéeg mu yéeg ci kaw yooyu yëpp mu def ko ci génn guddi dellu sewaat guddi gi des kooku suñu boroom moo ko man loolu yàlla dong nga ko man waaye ki ka man def na ka ba mu ñëwee fii tamit sama boroom defal na ko loolu saa su ne mu di ko def nit yàlla yi xam nañu ne moom sallallahu alayhi wa sallam day génn di dox ci awaalim yi du aalamil insi wal jinni rek aalamil malaayika aalamil bixaar fépp lay dem mu ne na guddi gu jot ma génn di wër di àddina seet fu ma borom bi di wàcce waaye yàlla tegtal ka ci wolof tegtal ka lébu ni ngeen xamee histoire bi moom la yusuf nabahaani di wax wa saarin bayna al awalimi lam taxsurhu min rawdi qabrihi arjaau loola daf ko mënoon di ko def moom yonen bi salallahu alayhi wa sallam biñ mu génnee àddina ñu robi ko denc ko nee ne day génn xabroom di wër àddina fu muy jaar ci kantan ak suñu boroom du jaar ci bunta day dem ndax leer la ابن حجر الهيتمي وخني ففي القبر الشريف تراه حيا الى كل البقاع له وصول نينا موغي تي خبروم دو دوند واي داي ديم بوليم غوخي اديني لولو يمنا واي موم سيدنا الامام عليه الصلاه والسلام دا فا وخني مو جوغي مكه ينو لير يا اك سونو يرو cëppeelu fii ci Ngor moom la kaw li ñang wax yaa daawoon yenu leer yaag sunu yuroo malay japeelu Ngor riway deg turi riwaana laay ku gëmu ñu gëmu ku bañ dunu tàggoo ba deewaay lu gëm ku bañ لولو شيخ اسماعيل حقي في تفسيرم دا فا الامام الغزالي بي نين خم بيموي واخ تي ماي يوننت بي صلى الله عليه وسلم دا وله وله الخيار في أن يطوف بين العوالم ومعه أرواح أصحابه رضوان الله عليهم لولو دفنا مو غن دبوك سوني بير مون يالا ماي سن سن ماي خيار سوا موي وور ادينا دي وور فوكانيخ اند اك روي سابام يا تيلن دي نيم يا ناويون مكه yenu leer ya ak yanaale woon maaka yenu leer ya ak sunu ay laay yanaale woon maaka yenu leer ya ak sunu ay laay yanaale woon maaka yenu leer ya ak sunu ba nga ku gëmu nu gëmu ko bañ danoo tàggoo ba dee waanaa yamul maas njooloo yaay borom diine خلال غنويون ليرال yoon leeral دينا ngirum في دي يعلم fii أيدني الحق وإياك أن من الأولياء خلق يتشكلون في الصور المختلفة نيني أمنا تنتي يالله نيو خمنا دانيو سوبيكو دي جور أي دي, جيل أي ملوكان يوتي واي بغير حلول أرواحهم تسين رودو دوغة ملوكان وو mu ne ka an yatatawara wa yatasakkala al wali fi suurati jamalin aw thawr ñun de xam nañ loolu léeg-léeg nitug yàlla dal di soppeeku jël jëmmi gëléem mbaa mu jël jëmmi nag xam nañ ko si tafsir ndike ak ñu mel ni ñoom loolu ci almaqaam yi lañu ko jële ndax moo koy def def na ko démb def ko tey lim ci def tey nag buñ ci duggoon fii ah yaakaar naa ne nit ñi dinañu jaaxle ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam li ko yàlla man loo amul fu muy yem da koy may rek ñii muy wax nag dañu tëbb ci ay mayam nee ne maa baqaayi suuratihil ula ala asliya bi duni taxayur nee ne jëm ngëm jëmmi cosaanam day des du soppeeku waaye yeneeni jëmm day jël yeneeni jëmm di ko def bu ko neexee mu xar jëmmam def ko ay jëmm bu ko neexee mu génn jë melokaanu nit dugg melokaanu mala wala leneen duñ ci sori loolu nag suñu boroom daf koy maye nee wa ida arada alxaqu taala tadlila qawmin dalla lahum bi walin min awliyaay tasawur yàlla bu namee sànk ay nit day jël kenn ci ay nitam moo xam yonente la wala keneen ku may mu feeñu la ci melokaan woo xamul nga saaga ko ŋàññe ko lorka te yaa sampap tante di ñaan ci barkem mu ak yow nga di ko ak naka da ngay fen motax lolo wax fi ida araada tadlila qawmin dalla lahum bi waliin min awliyaa tasawur wat tatawur wat taqallub fa yatatawar lahum fi suwar wal al mudallila bu ka defee mu di leen feeñu ci ay melokaan yu leen di réeral ñu ga gën di saaga di ko gën di ŋàñña te bés bu feeñee ëllëg yowmal xiyaam ñu xam ne def nañu musiba ki ñu doon sopp di fanaanee way ak di ko bakk ak di ñaan ci barkeem moom lañu doon saaga waaw musiba gënu kaa rëy moo tax nañu gëm yàlla gëm ay dogalam gëm kàntanam yàlla kenn du ko fontoo bu lay duma mën na koo jaare ci nitam loolu lu am la moo tax nañu fonk téere yi nga xam ne mooy téere yi wax ci wet gi ci des bu ñu yem ci téere yi zaahir yi nañu seet mag ñi lan la ñu bind ñiy jëflante ak sunu boroom ci wet googu nañ koy xool mu ne falaa yalbasuun an yarahu ala hadihi alxaala falaa yasukun annahu min ahli dalal fa yaqiisuuna bima yaqiisuuna bihi dalala anfusihim yaqiisuunahu bima yaqiisuuna bihi dalala anfusihim nee na kat dañu koy jàppe ku réer ngir seen ak réer dañuy jël moom di ko natt ci seen bopp nekk yi nit ku réer la te fekk kooku moo gën a gindeku ci li yàlla bind bu ñu demee noonu nag seydina alimaamu alayhi salaatu wasalaam dafa am wax bu mu wax wax bu am solo dafa ne naar ba xeesoon ñuul na maa weexoon domb maa ñuul tey ñu ne ah waaw ba tey gis nga déggatil nga leen ah kay déggati ngeen ñu yàllaay def yooyu nañu delluwaat ci téere yi boo demee ci alaamu nubuwa wax na xeeti kéemaan yi ba ca gën a jafe ci ni mu ko waxe mooy kéemaan gi nga xamee ne moom lañ tudde xalbul ayaan waxtiraa assuwar soppi ay jëmba walla boog di créer ay jëmba ñu ne xeetu kéemaan googu moo gën a sew gën a jafe ci kéemaan yi waaye nag weex ak ñuul wax digg yàlla sama borom mën na lu ko raw naar ba xeesoon ñuul na bu ñu dellusee ci alquran alquran mu ngi ñuy nettali ci yonente yi koo xam ne boo weddee weex ak ñuul di nga weddi waale aaya ba mu def alquran di ko nettali deeti ko nettali deeti ko nettali ay yoon muy yont yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam yont yàlla Moussa xam ngeen moom dafa bokk ci ulul azmi min rusul mën nañoo wax ne moo ëpp lu ñu nettali ay xisaam ci alquran waaye itam mu ngi seede mbir moo xam ne dina ñëw ginnaawam te dinañu ci weddee yonentab yàlla waaye en même temps itam muy aaya boo xam ne daka taxawal na yàlla tàggat ka ci keroog ca ba mu dajeeg moom ca Sina adxil yadaka fii jaybik taxruj bayda min xayri suu wala loolu تخرج بيضاء من غير سوء نيونا اي يون تي القران دوغل سا لوخو تي سا باتو مبا ген كم ويخ تال وا لان ген تي ورا مانا ديغي نيت كو ويخ موي ديف لولو دوغال لوخوم ген مو ويخ ورا نان تي تخاو نان لاي دوني كيمان بو فكه ني ويخ مو ديف لولو ngir ñu gañe waxtu bala maa ñëw si tafsiru aayaat yooyu nga xamee ne firaw na moo ko ko laaj yàlla tàggat ka ci ba noppi tàggat ka ci yet woo mu yoroon bu ko sànnee muy jànn ndax ba mu ko cëdee jëkkee tàggat dafa daw sama borom ba ook naka inni laa la day yal mursaluun sama ndaw day am fit du daw allazina yuballighuuna risalati llahi wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa allah kuy jottalil yàlla dangay am fit boo xësee ragal yàlla dootoo ragal keneen mukk ku ragal ci ëttub yàlla yàlla génnal ëttam bokkatoo ba mu ko ca tàggatee ba noppi Muusaa dem ca firaw na di ko oo na da ko laaj defal ma kiimaan sama borom ba dugal ko ci baab bi gën a jafe mooy xalbul ayaan soppi jëmm ya wala soppi melokaani jëmm ji xam nga ne kon noonu la ñëwee te def na ko fii ci kanamu mag ñi Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam sang bi fi jógee Seydina Abdoulaye da ngeen ko dégg mu xaajee jëmm ja lii weex lii ñuul bu xoolee fi wax ne Muhammadu Rasulullaay laa ilaaha illa maa ngi ciy ñëw wallaay jërëjëf laay maa ngi ciy ñëw loolu def na ko ci kanamu mag ñi bu xoolee fu wax bi ne Muhammadu Rasulullaah la ilaaha illallaah bu xoolee fu ñuul fi ne Limaamu Laay Rasulullaah la ilaaha illallaah naa bànd boobu mu ngi fi ba tey laay la laay laay ah laay la waaye wan ni mu fi ñëwee waaye alxuraan du ko gécci moo gën a xam alxuraan ñépp mu ne fekkuma fi Moussa de waaye nag jële nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu pour yont yàlla Muhammadu mu fi fekkul Moussa ci zahir yàlla yóbbu na ko fa mu ko yóbbu ca rañaan ma mu gis yont yàlla Moussa gis Isa gis Ibrahima gis li des yonente yi mu ñëw ku ci ne mun la kii nii la mel ak nële ku ci ne dem na ci yow ñett lu mat ñaari yoon wala ñett melokaan woom lay fekk day uteeg bi mu la bàyyee woon nëkk bàyyi Abdou Caba Caw waxe woon ne Seydina Limaamul Mahdi yu mii booba mu ngi ci këram boo ko masaa doxali soxla bàyyi ko xar kanam mu ne boo oññee koo ñëw fekk ak geneen xar kanam gu uteeg googu moom moo dund ak moom loolu xalbul ayaan kii leneen la Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam mu madal bi di xaas wada qad taxayaroo law law an ibnu abbas jërëjëf oui waxtu yi moo dem mu ne an ibni abbasin radiallahu anhuma qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wa sallam raaytu isa wa musa wa ibrahim fa amma isa fa ahmaru jaadun aridu sadr wa amma Muusa fa aadamu jasimun sabitun ka annahu min rijaali zut léegi pour ñu mën a xam Muusa nan la meloon dégg nga yonneen sallallahu alayhi wa sallam moo ne gis naa Isaa gis naa musaa gis naa Ibrahima mu ne Isaa de ba ma koy gis nee ne dafa weex dafa xonq waaye nag am na ci karaw karaw ak nit ku ñuul mooy jàll aridu sadr nee na dënn ba yaatu lool waaye Moussa fa aadam Moussa day ah dafa ñuul aadam mooy ñuul maanaam boo ko doon firi si olof gàttal mooy ñuul parce que tubaab yi brun la ñuy wax yaakaar naa mu brun waaye nag dafa am lu ñuy wax al udma shadida dinañ ci ñëw mooy xeereer gu xóot mooy ñuul kukk mu ne jas jasi mun ne dafa amoon jëmm sabitum xoolal ñaari riwaaye kii ngi yor karaw nit ku ñuul kii yor karaw ak nit ku weex kii ñuul kii weex gis nga ni ñuy changé dina gisaat yoon ci àlla Musaa mu ñuul yor karaw ak nit ku ñuul mu gisaat yonti yàlla isaa mu ñuul yor karaw ak nit ku ñuul moo tax ibnu omar daan wax naan riwaaya bi wax ne yoneen bi dafa gis dañ ko gis mu xonq nee ne ah demewul noonu yonti yàlla isaa li ko yoneen bi gis yëpp aadam ñuul la jege ñuul waaye nag riwaaya bii ma wax mu ngi ci buxaar yi benn ngoog pour ñu xam yont yàlla Moussa nan la meloon dafa wax ne moom sallallahu alayhi wa sallam amma Moussa fa aadam jasim sabit mu ne ka annahu min rijaali zut waaw lan mooy rijaalu zut mu ne Moussa daal bu ma koy am ñu ma koy méngaleel mu ngi mel ni ku bokk ci xeet wu ñuy wax zut ñan ñooy zut boroom xam-xam yi ne azuttu jinsun min assudan azuttu jinsun min assudan nee ne xeet woowu ñuy oowe sut ñoom xeet la wu nekk ci suudaan mu ne yoneen bi ne ñooñu laa ko mën a méngaleel ñoom lay nirool kon tekki na aadam gi mu waxoon mooy lan mu ne qaadi al abu al qaadi abul fadl iyaad wax na ci masariqul anwar ala sihahil athar mu ne ka annahu min rijali zut ay jinsun min as-sudan ah waaw léegi ibnu mas'ud ñew ne kharaja علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطا وقال لا تحدثن شيء shay'an hatta atiyak summa qaala laa yuhulannaka shay'un tara fa taqaddama shay'an summa jalas fa ida rijalun suudun ka annahum rijalu zut wa kaanu kama qaala taala kaadu yakunuuna alayhi libada pour nga xam lële mu ne bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu gàddaay gi ànd naa ak moom ci wàlli màkka mu ne ma yemal fii dal di ma rëddal aw rëdd daldi ma ne bul def dara bu fi sos dara feek mën ñëwuma te itam bu loo gis bu mu la tiital lan la ca teg mu ne fa taqaddama shay'an summa jalas yonente bi dox tuuti dal di toog maa ngi koy seen mu ne fi ma toog man fa iza rijalun suudun ka annahum rijalu zut mu ne ci saase rekk ma gis ay ay ay gaay yu ñuul yu ñuul ñu ngi mel ni ñu bokk ci xeet woowu nekk ci suudaan waaw yonent bi ne kon yonti yàlla Moussa mu ngi mel ni ku bokk ci xeetu suudaan a ah, loo siy jàpp pour nga firi aaya bale dangay ngay jàpp ne dafa ñuul kii ne gis naa ay nit ñu ñuul jinne yi soppeeku lañ mooy bi ñuy déglu ci alquran nee ne ñi ca couleuram bu jëkk waaw couleuram bu jëkk kon bi mu génnee loxo bi loxo bi dafa weex li des ci yaram wi ñuul nit ña ne loxo ba ñuuloon weex na loxo ba weexoon ñuul na looloo doon jub ba Moussa jëkkee génne loxo bi dañu ne loxoom bi ñuuloon weex na ñépp a gis ka mu weex mu dugalaat ko génne imaam Qurtubi ne fa aadat ila lawnihal awal ñu ne loxo ba weexoon ñuul na leer na ci ñépp ne Moussa dafa ñuuloon yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam loolaa waral mbir ma mën a doon kéemaan loolu moo waral mbir ma mën a doon kéemaan moo tax Shaaraawi yàggu fee jóge بموي واخ دافاني ونعرف ان موسى كان اسمر اللون لذلك يكون البياض في يده مخالفا لبقيه اللون بشرته من موسى دين خمون تي نيولاي لولو تخ ويخاي لوخا با اوتيك لي ديس كون ديفنا لولو ليرنا مو دالدي واخ معلوم أن موسى كان أسمر اللون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يصف الرسل الذين لقيهم في رحلة الإسراء والمعراج نيني موسى لن خمتي موم مودي كنيول لون نخناري يا كارنا كودف موند عرب ديغ nga bat bobu ci ñom gaawuñ la wax aswad ludul buñ la bëgge asmar rek lañ wal arabu taqulu lil aswadi asmar al arabu taqulu boo demee ci Égypte gi abu samra lay wooye wala ñu lay ooyee samara kon loolu lim bëgg a wax mooy yow nit ku ñuul ki kon mu ne wa min huna kaana bayaadul yad wa nuuruha fi sumrati lawnihi aaya min ayaati llahi walaw kaana muusa abyada lawni ma zahara bayaadu yadihi mu ne ci loolu ngay xame ne weexaayu loxop Moussa ak lèr gu mu lèr ne li loxop nit ku wéx la ci yaramam gu ñuul né ne loolu kéemtaan la ci kéemtaani yàlla mu ne bu doon Moussa nit ku wéx la né ne kon weexaayu loxop bi du feñ ndax yaram wi yépp dafa wéx kon ñu déggé ci ne yont yàlla Moussa alayhi salatu wassalam bi ko yàlla di defloo kéemtaan googu am na lu mu bëgg a wane bëgg na wane ne moom suñu boroom moo mën a fekk lu weex mu ñuulal ko moo mën a fekk lu ñuul mu weexal ka moo mën a fekk lu weex mu génn ci lu ñuul moo mën a fekk lu ñuul mu génn ci weex mu génn ca lu weex waa lu fi indi naan loolu mënul a nekk ah alxuraan dina wax nga ne mënul ne ah boo ko weddee dil Moussa rek kéemtaan gu rëy la waaw ñu ñëwati mu utilise nag baat boo xam ne amul werante man ngaa werante sumra man nga werante udma waaye dafa am baat boo xamee ne kenn mënu koo werante ci arab ndax kenn du ko jëfandikoo ci geneen maanaa guddul ñuul kukk موخات ني ورا ايت عيسى شابا ابيض جعد الراس حديد البصر مبطن الخلق من ورا ايت موسى اسحم بعد بانغوغو اسحما ادم كثير الشعر شديد الخلق مونغي غيس دي غيس رك من غيساتنا موسى عيسى لا جيك واخ مو دون واخا مباني ويخ نينا باتاي karaw ga baramoo nee ne mu doon ku ñaw ab gis mu ne musaa ra'aytu Muusa asxam aadam daka feddali sax baatab asxam arab mënu koo jëfandikoo ci leneen mënul nekk mu ne kasiira champ shadid al ku bari karaw la waaye yàlla du ko bind mu musculé moom yont yàlla Moussa mu ne wa raaytu ibrahim xam ngeen ay yoon wax na ci ibrahima mu ne fala anzur ila irabin min arabihi illa nazartu ilayhi ka annahu saahibukum mu ne dama xool ibrahima cir par cir mu mel ni sama nataal waxaat naka feneen nee ne maag ibrahima mënuñ ñoo xàmmee ñun xam nañ loolu fii si kër gi kenn mënuñoo xàmmee maag ibrahima mu ne xool naa cëram yépp man ak moom mënuñoo xàmmee léegi nag fii Moussa nee ne asxam aadam kaay lan mooy al asham ñu ne al asxam huwa al aswad lan moo la koy wan sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne allah allah fi ahli nudra assawda assuxum aljiaat fa inna lahum nasaban wa sihra nee ne maa ngi leen di artu ci ñooñu dëkk ci li nga xam ne mooy dëkk yooyu nekk ci dëkk bu ñuy wax misra mu ne asuud as suxum aljiaad mooy ñu ñuul ña boroom karaw yu baramooya mu ne na ngeen def ndànk ci ñoom te maa ngi leen di artu ci ñoom as suxum as suxum ja jamu asxam boo dee góor asxam la ñuy wax boo dee jigéen ñu ne saxmaa boo dee góor asxam la ñuy wax boo dee jigéen ñu ne sax ma mu ne maa ngi leen di artu ci ñooñu waa lan la yaa rasulullah mu ne ndax ñoom dañu amu askan africain yooyu xam ngeen Égypte gu jëkk wax dëgg yàlla ay ñuule lañu woon même banu Israël njaxas lañu woon loolu ko ku jàng histoire war nga koo xam ci téere français ak yu arabe yëpp bind nañ ko mu ne nag ñooñu na ngeen def ndànk ci ñoom te bu leen kenn lor ndax dañu am aw askan maanaam wu kenn amul am ngoro gu kenn amul qaala omar fa nasabuhum anna umma ismail minhum muy haajar mu ne seen askan wi muy tudd moom sallallahu moo wa sallam mooy yaayi ismaila haajar ci ñoom la bokk te dafa ñuul moo jur ismaila mu ne am nañu itam ngoro mu ne an rasulullahi tasarra minhum sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam am na taara bu bokk ci ñoom africaine moo jur doomam ji ñuy wax Ibrahima mu ne bu dundoon dib yonenta xanaa ak yonenta dagan na ci nit ku ñuul doomi nit ku ñuul nàmpak si ku ñuul mu ne bu dundoon dib yonent waaye sama ginnaaw beneen yonenta duñ ko tabaat Ismaayil Haajar moo ko jur Afrique la jóge ñuul kukk dëkk bu ñuy wax umul arab ca Égypte yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam baatab asxam moom lay jëfandikoo. boo fàtte la ko ci liaan muy rëbboo la ko andi woon fekkoon góor ci soxnaam te góor gi xam nañu ko ku ñuul la ñu tudde muy tudd surayk ibnu sam saxma moom surayk la tudd doomi nit ku ñuul ki ba ñu ko tuumaalee waymir tuumaal ka mo andi rebo gi amna yenen riwaya tamit ne da ko fekk ci soxnam sallallahu alayhi wasallam sallam ba fa wax je jeexe waye ba ca soxna sa jele ëmb lan la yonen bi sallallahu alayhi wasallam wax dafa ne unzuru fa in jaat bihi ashama adajal aynaini ba fa wax je jeexe ne xol len xale bi bu ngeen ko fekkee asxama muy nit ku ñuul kukk ak ajal ay nay ni bët ya day weex ñuul ñuulu bët ba di ñuul kukk mu ne bu boobaa de na ngeen xam ne ah waymir de moo wax dëgg waymir moo wax dëgg lu tax mu wax dëgg mooy ki muy tuumaal yaayam nit ku ñuul kukk la moom nit ku ñuul kukk la kon baatab asxam bu ñëwee lola lay firi amul beneen firi ci arab asham nit ku ñuul lay lay lañ koy ñuulaay lay firi looloo tax dañ daan wax ni as kal xuraab kal xuraab kon imaam ibnu jusey jëfandikoo na itam shadidul udma nee na itam wa muusa kaana shadidal udma moom itam ku taroon ab ñuulaay la dañ daan wax ne asxam mooy ñuulaayu baaxoñ kooku ñuulaayam tar na léegi nag limaamul mahdi mi nga xamee ne dañ ko déggale woon sallallahu alayhi lan mooy ab couleur dégg nañ fi sumra shadida dégg nañ fi udma shadida dégg nañ fi asxam yooyu yëpp boo ko seetee mu ngi firi ñuulaay kon yont yàlla Moussa kéemtaan gi mu def saxal na moom sallallahu alayhi wa lu bari ci mufassiruun yi saxal nañu ne Muusa dafa ñuuloon kukk loolaa tax loxo ba weex mën a doon kéemtaan waxtu waa ngi nuy dab ngir rek weex ak ñuul lañu bëgg ñu reesal ka mu rees ñi mu sëkk mu rees ci ñoom ndax lii boo ko déggee manoo ne es manoo wax lu dul eskay sama boroom ñun ñi kan moo ko fiy def ku ko fi jéem xam nga xam ne yàlla rekk man mi def dina ñuul te làmbaleer yi yan leen ba yay tuuru ca géej ñuy naan ca meex ma suñu borom aaya la ko tudde bu ko fàtte aaya la ko tudde kéemtaan si juróom-ñeenti kéemtaan yi mu joxoon yonent yàlla Moussa ak sànni wi mu doon jaan Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp def na ko ci buntub aha xalbul ayaan waa dooma laaj bi si des nan la ko defee booboo gën a xaw a doy waar si bis sànni wa mu doon jaan génn xeetu doom aadama ah, safurla génn xeetu luy dund jëm ci xeedu lu way lu dundul jaan aw yet moo jóge ci jamaat doon luy dund lu dundul doon lu dund ba yàgg luy dund doon lu dundul amin waxtu waa nga nuy dab de mu ngi ñëw lu mu wax lu ne nag duñ ko xeeb dañ koy indi ci terrain bi mu ne sànnil yet wi mu sànni ko ci saa si mu doon jaan dugalal solo mu dugal génn ci saa si mu weex xoolal loolu te tàggatoon na kasi ba noppi ndax bu kasi tàggatul woon bu demee ca firaw na mbetteel yooyu am ñépp tasaaroo moom day daw waaye daw bu njëkk ga yàlla dalal na ko dalal fitam pour li di ñew mané nak sayyidina imam ali salatu wassalam xéetu lu xéeto ak bi ci dess la la wax yet wu jaan jaan di soppaku sayyidina babakar job imam iman babakar job suñu mam joju nga xamé ne ku mandu la won nangul wax lu mu xamul kenn mënu ko wax lolu mu xamul boko laaje lu mu xamul du la ko wax boko laaje lo waru la xam du la ko wax donte xam na ko moom loolu ñuy dund moom ñëpp xam nañ ko dafa ne dem nañu seeti soxna suñu wax soxna Michel Sène defe naa xam nañ ko ci histoire jaatig la woon Seydina Limaamu Sogore ku ne xam na soxna Michel seen nan la gise woon Seydina Limaamu xam-xam ba mu yoroon mu ne man man sama jëmmi bopp ànd naa dem ca moom ñu toog ak moom dikkalaaj ka laaj Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nan la nekke woon fii ci Gorée mu ne leen dinaa leen nettali ci moom ay mbir yu yéeme waaye duma leen wax lépp mu ne dinaa leen si wax ñaari mbir yoo xam ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam def na ko fii ngeen toog dama koy fekki maam kër Diop kooku maandu teem foo nattaweesu na ko du wax lu mu xamul ñi daan enquête xam nañu ko boko laaje laajee lu xamul du la ko wax boko laaje lo waru la xam du ko wax bañ koy laaj seyna ma jor la doon def parce que koy laaj ñu ko xam lolu ak yeneen ak yeneen mu ne leen dina leen wax lo xamne ñaar yo xamne fi la ka defé fi ngeen ne ñun ka yan la soxna si ak nopam mu ne leen sayidina ali ñew na fi tok tubaab yi dañu ñëw ubbi fekkuñu ko fa xoola kéemaan googu dañ ko daan ubbi kon condamné ko ci ginnaaw duñ ko bu ñu ñëwee ubbi fekkuñ ko duñ ko fa fekk dinaa ñëw ci beneen xisa boo xam ne gore mu ne dañu ñëw ubbi bés fekkuñ ko fa te pourtant mu ngi continuer di tëju la na wax rek lam tax surhu min raw di xabrihi arjaa tëj gu ñu tëj ak miire gañ koy miire clôturé ka terew kaa génn dem dañ ko doon ne ci ginnaaw ki daan monte garde ab setam direct moo ñëw ak man wax ma ca Gorée 94 dinaa ci wax mu ne mu ne leen tubaab yi ñëwee nañu doole parce que xamoon nañu ne boobu kii moo fi njaatigéen te maam Michel boroom xam-xam la woon mu ne ñu ñëw. fi mu toog moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam maam Babacar Diop ay wax mu ne ñu ne uwe limaamu di ma yuuxu bi ñu yuuxu naa ma uwe limaamu ma xool gis yet bant bu wéeru fi mu toog mu soppaku doon bant moo leen ko wax ñuy xool fu mu nu mu leen neexe génn dem ma xool muy Seydina Limaamu lay toog nettali am baab imaam Babacar moo nettali li jële ko ci maam Misel sel seen na lii def na ko fii ëlbati boppam di wet duñ ko rus a wax mukk ndax ci bunt bii la bokk xalbul ayaan pour xamal la Seydina Limaamu lan la ma ne booleeg diine ja mu andi kenn andiw ko sellate ga mu andi kenn indiw ko deful yooyu ba noppi ñàkk diine déedéet kon istidraaj lay doon mu ne ñaareel bi yoon defati na lu ni mel mu ñëw toog tubaab yi ñëw neeti ma uwe limaamu am loo xamee ne dafa dal ci sama tënqal yi lu da ma yëg lu dal ci sama tënk ma xool mu yor form weer wii ñu tiim mu ne lu ndaw la ma xool fi Seydina Limaamu toog gisuma Seydina Limaamu Laay man leen seet leen uwe Limaamu ñu seet seet seet dem ma xoolaat gisuma ko ma xool Seydina Limaamu lay toog li mu def ci yooyu du jeex du jeex monsieur Ngom ca gore ba ñu demee 94 moo ma ñëw di ma seet fa ma nekkoon mu ne ma Seydina Limaamu Laay dinaa la wax dara si moom sallallahu alayhi wa mu ne sama maam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon monter garde ñoo ko doon ubbi ñoo ko doon condamné mu ne jommal na maamam jombal tubaab yi ndax nee ne maamam moo leen wax ne ñëw naa ubbi ka bi ma ñëwee ubbi ka gisuma ki ma fi bàyyi woon waaye gis naa xale bu ndaw bu toog ay ndab wërk wallahi wallaahi ko wax ci bor est est-ce que julit la sax yaakaar na bu dul chrétien mu ne ma tit del di wat bunte bi ndaw dem wax ka tuba bi miracle bobu mu def waye mu ne xamul lu expliquer lolu mu ne tima mu defati ma lu mel nonu ñewna bés diko ubi ubbi ma ubbi ko fekk mu fess nek bi wallahi ma tiit puusati bunt bi pour wan la ne bunt bi gën a jafe ci kéemaan moom la naa Seydina Limaamu doon def mu ne ñetteel ba mu ubbi fekkuma ko fa fu mu jaar lii yépp ay kéemtaan la soppi na boppam def jamaat mooy lu ruu amul jële boppam ci loolu dellu si ci lu ruu am yu mel noonu ak ngenaaw ak bari na buñ ci duggoon di wax li ci Seydina Limaamu def lépp sallallahu alayhi wasallam kon duñ fi jóg kon nag gis ngeen meloom yamu saytu woon ba wéy neex ka mu weex ah baa mu ñuul doon nga ko wax léegi neex ka mu ñuul baa mu xees li ñuy xame yonneen xoolal loolu dégg bàyyi bàyyi maali bay mu ne gis ngeen meloom yamu saytu woon ba wéy neex ka mu ñuul baa mu xees li ñuy xame yonneen limaamu laay ku mu waarul danga sori fa mu nekk ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote kon bokk na ci li ñuy xame yonneen téere boobu ma la wax alaamu nubu wax mu ne li ñuy xame yonneen bokk na ci xalbul ayaan mooy neex ka mu ñuul baa mu xees bay maa li mbay ne li ñuy xame yonneen am na beneen boo xam ne dala dalaa ilu nubuwa maadi yu nag moom lan moo diw melokaanam liñ ne limaamul maadi asmar shadid sumra dafa ñuul tarab ñuulaay boo demee ci laambiyatul xalawaani daf la wax ne la bi mu ko ubbee ala ayuha sa sa an xabaril mahdi maza minhu abana dalilu dafa dem ba wax ne وجهه في استداد سمرته كل كوكب الدر البضيء جليل وجهه خركنا لما الماديو في استداد سمرته سنولاي بتربة دعنا كل كوكب الدر مونغي ملني فيديو بو خا خامني دنج كو جاج مودانو دالدي سان كلير مودي بوي ليرال جليل دي ادي ماك نيني لي ماون نون لا كيغا خامني نك موي استاذ عبد الحميد الهلالي بيموي واخ ci melokaanu maadi yu ñuulaay ba dafa ne ta mom mi wax dafa xess ku weex la égyptien la mu hal hunaka hikma fi an yakuna al imam mahdi zu basiratin samra ndax dafa xam hikma imam al war wara yor couleur bu ñuul dañ ko ko laaj mu ne waaw am na xikma mu ne ba hikma ba man lima jàpp moy رد بعض النفوس البشريه التي تنظر الى اصحاب البشره السمراء نظره دونيه mu ne lii day jajja couleuru madiou bi ñuy seenu ñuulaayam boobu yàlla ngi ci avertir di jajja ñi nga xamee ne ñooy xool ñi yor der boobu xool bëtub xeebeel dégg nga loolu moom miy wax nee ne rubbama takunu hadihi lxikma hiya rad بعض النفوس البشرية التي تنظر إلى أصحاب البشر samra nazratan duniya كيف kuy خولي nit ku ñuul bëtu خيبل ما دي بوبو نيو دي نيول وجهه في استداد سمرته كالكوكب الدر المضي جليل ما دي بوبو بو نيو دي نيول واي يالا نتي جاجا دي فرين كيب كو خامني يورغا ياغي خيب ني يور كولور بوبو نيولاي بوبو موم لا واخ في دي تا مان غيسنا كوك سماكي لان موازين البشر عاده ما تكون خاطئه في تقويمهم لشان الحياه nee ne adama yi seeni nattukaay li gën bari dañuy joom ci ni natte doomu adama yi dañ ci faral di joom bu baax nee nak yàlla dafa am ay asrar wa bil qat'i hunaka asrarun kathira lil khaliq fi khalqihi nañu xamne yàlla amna ay mbóot yu bari ci bir ay mbinde fam nañu xam lolu yàlla mo mo dogal lolu motax bo deme ci takmilatul futuhaat bu cheikh tourmi dafa wax ne wal anbiyaa'ul aa'iduun lahum asraarun fi awdatihim mu ne yonente yi war a ñëwaat am nañu ay mbóot yu ñu àndal ci seen ñëwaat googu moo tax fii mu ne bil qat'i hunaaka asraarun kasiira lil xaaliqi fii yi a ah, waxtu wi daf ñu dab du ñu mën a dugg ci li si des waaye nag da nga weddi nit ku ñuuloon weex wala nit ku weexoon ñuul waaye am na xeer wu weexoon ñuul xanaa xeer a gën a dëgër yàlla foofu la nag defi bi nu aw xeer nag moo gën a dëgër nit walla déet aw xeer a gën a dëgër nit ci la ñuy tëje ñu ngi jéggalu ci guddal gi alxajarul aswad gële nit ñiy reyante di xëccoo bu doon wax danaan maa weexoon démb ñuul tey wala déet maa weexoon démb ci àjjana maa ñuul fii ci àddina bu doon wax ñu di ko dégg maa weexoon démb ci àjjana maa ñuul fii ci àddina te moo ne de ab xadis la de xadis bu wér bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne ñu jële ko ci ibnu abbas qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nazala alxajaru alaswadu min aljanna wa huwa ashaddu bayaadan min allaban fa sawadatu xataaya bani aadam nee ne hajaru aswad bobu ngay gis ak ñuul ñuulaay bu rafet la ñuul adina gep ngi xëccu di ko fon ci kaw ñuulaay bi nak mu ne bi muy génn aljana mo gëna a soow am na de lu ko gëna wéx weex ne xool ko fa aswad yonente yek waliyul yek ñep dañuy ñëw di ko fon xola bobu ma xama xola bobu ma xama nee ne sa wadatu bani adam li sabab yàlla solal ko loolu mooy ne moom ci la doom aadama yi di reesloo di sippikuloo seeni bàkkaar kon nga xam ne kooku sang la boroom bàkkaar yi dañuy daw jëm ci sang bi ngir lan mu ne loola sama boroom ba soppi melokaan wi déggal nag ibnu arab yi ban dégg la ci am bala may ñëw foofu موم صلى الله عليه وسلم وخنا ني الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن لم يدرك بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر فقد بايع الله ورسوله مني خير وو موي ندجور يالا سي كاو سوف نينا كو في فيكول جاينتي بن دون جاينتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا بوكو فوني ملنا ني باينتي يالا اكب يونتام amna lu ci baye seydi ciowdan wax yakarna waaw ci loxo loxo bu wala déet noonu la deme kon nag déggin bu rëy bi nga xam ne moom la ci dégg moom Ibnu Arabi ci lay tëje ndax waxtu yi dab na donte dab nañu moom sawadatu xataaya bani aadam déggal dégg bu rëy ba mu ne ay sayyaratu sayyidan bi taqbilihim iya fa lam yakun min alwaani maa yadullu ala siyaada illa al lawn al fa kasaahu llahu taala law na sawaad nee ne xam nga yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee ne xataayaa bani aadam seeni njuumtee tax mu ñuul mu ne sayaratu sayidan mu ne looloo tax nit ñi seen ak mooy yàlla ak seeni njuumte moo soppi doj wi mu dib sanga bi taqbilihim iyaahu sa foon gañ koy foon mu ne falam yakun fil alwaani maa yadullu ala siyaada mu ne amul ci couleur yi benn couleur bu mën a feeñal ak cang dëggantaan mu ne illa lawnal aswad yàlla gisu fi beneen couleur bu mën a génn daraja yi nit ki ak ak cangam lu dul couleur bu ñuul moo tax président yi si àddina yëpp ak buur yi pour seen gëdd mën a feeñ seen cortège bépp day ñuul waaw mu ne nag gisuñu ci melokaan yu mën a génne dëggantaan daraja yi nit ki ludul melokan melokaan wu ñuul taala law na sawaad sayyaratu sayyidan mu soppi ka mu dib sang góor gii nag dafa ko bind boo demee ci téere dañ la ne def na min xayri azu waxul waxuñu ku ko wax dañ ko fekk daal ci biir maktabaat yi boo demee ci taxsin alqabix wa taqbih alxasan da nga ko ca fekk bi muy wax ci melokaan wu li tax moom ñuulul ba noppi fan melokaan wu ñuul bëgg ko lool lan la tëje dafa wax ne wallahu albasa ahla bayti muhammadi lawna sawaadi fa kuffa anka itaabi mu yàlla de solal na néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaan wu ñuul kon nag bul dàgg sante ak man nga defe ay yére lay wax waxul ay yére donte ñi amul a dégg dañuy defe ne yére la yàlla du solal kenn ay yére bu dee ay yére dañ tànnal bayaat mooy weexaay bi waaye ak càng nag ibnu arabi ne melokaanu sang mooy melokaan wu ñuul moo ta moom mu nga sa galaas ga weex tal waaye maandutee tax mu waxe ko noonu li des ci waxtaan wi dafa xaw a bari te waxtu wi xat na li ñu mën a wax mooy seydina limaamu laay alayhi salaatu wasalaam waxu fi dara loo xam ne mënuñu koo layal waxu fi dara loo xam ne alquran mënu koo wax wala waxu ko waxu fi dara loo xam ne nit ñu baax ñi waxuñ ko waaye amuñu benn nëbba nëbba ci li nga xam ne seydina limaamu wax na ka la ci gën a rëy ba la ci gën a tuuti alayhi salaatu wasalaam wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil